Cette confrérie Tidjane de Tianaba est la plus vieille du Sénégal. Cette année, vous nous accompagnez dans la célébration de la 143e édition du Maulout. C'est de loin la plus vieille confrérie du Sénégal, mais par nature discrète. Par nature discrète, mais aussi amoureux et proche de ce grand pays qu'est l'Algérie, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous partageons. Aujourd'hui, c'est l'occasion de le dire officiellement pour que tout le monde en connaisse. Ce qui nous unit, c'est d'abord l'islam. Nous sommes tous des frères en islam. La deuxième chose qui nous unit, c'est une proximité historique. Nous avons une histoire similaire. Celui qui est derrière vous, Cheikh Tianaba Mam Ahmadou Ndak, est le fondateur de cette confrérie. Et avant de fonder la confrérie, il a résisté pendant sept ans à la domination coloniale. C'est au terme de cette résistance héroïque qu'il est venu fonder cette confrérie, fonder ce village en 1882. Et ce passé de résistant, nous le partageons avec vous. Je ne parle pas de la résistance pour l'indépendance, mais je parle des résistances qui l'ont précédée. Ici, même les plus jeunes connaissent Abdelkader Al-Jazahiri, qui a mené une résistance héroïque en Algérie et aujourd'hui appartient au patrimoine algérien, appartient au patrimoine islamique. Donc c'est cette proximité historique qui fait que de tout le temps, Tianaba se sent proche de ce grand pays qui est l'Algérie, même si nous n'avions pas les canaux et l'opportunité de le vivre et de l'exprimer. Alhamdulillah, par la volonté de Dieu, nous sommes en train de mener les premiers pas pour cette proximité, pour cette union que nous espérons euh, durable et fructueuse. Donc proximité historique, mais aussi proximité par notre appartenance à cette grande confrérie tidjane. Nous, nous sommes des partisans de Aïnou Madi. Nous ne nous en cachons pas. moom nag mooy docteur Youssouf Bal Mahdi moom mooy ministre bi nga xam ne moo yor affaire diine fële ca Algérie nee na kontaan na lool lool lool lool ndax li mu fi gis ci ay xar kanam yu belli bi mu duggee ci dëkk bi ba léegi kontaan na ci fa tabaarakallaahu nee na mi ngi nuyu Baye Cheikh Thiénaba Baye Serigne Hassan Seck nee na kontaan na ci moom xam na sax ni bi mu ko xoolee kanamam daa belli neena tam njabootam gi mu fi fekk. ñu nga xam ni tey ñooy ba topp ci ginnaawam ñu présenté kenn par kenn xam na ni dëkk bépp ngi fi kon nee na ñoom tam mi ngi leen di nuyu nuyu bu set bu dekk ci xolam nee na tam ba délégation bii mu àndal kii mooy docteur Hassoun nee na président euh, Abdoul Aziz Tabboun euh, Abdoul Majid moo ko booleeg moom muy conseil principal am mu boole koog moom ne ko nanga ànd ak moom ba cara ba nga gisal ma xalifa bi toog ci wetam nee na tam mi ngi nuyu tam mbokkam di ambassadeur Subayhi bu bunu Alaam mu ngi koy nuyu moom itam ci délégation bi la bokk ak di Maxtaar mi nga xam ne mooy première conseiller foofa nee na daal ak presse bi mu fi fekk ak ñi nga xam ni itam xàmmee ne seen i xar kanam te mi ngi leen di gis nee na ñoom ñëpp mu ngi leen di xamal daal ni fii mu toog daal mbégte daal la fi tooge. <coughs> shukran. بداية اسمحوا لي أن أعرب لكم عن فرحتي وسعادتي وغاية يعني طربي بهذا اللقاء الحبيب إلى قلبي وهذا الشعور الذي أحسسته بمجرد وصولي إلى هذه المنطقة بل قبلها بوصولنا إلى دولة السنغال الشقيقة وجدنا كؤوس حب النبي صلى الله عليه وسلم طافحة وضافية ووافية لأن محمدا صلى الله عليه وسلم الذي نحتفي به جعله الله تعالى رحمة للعالمين جعله محبوبا في الخافقين فأحبته السماء وأحبته الأرض وأحبه الحجر كجبل أحد وأحبه جذع النخل وسبح الحصى في يده الشريفة صلى الله عليه وسلم فكيف لا نحبه نحبه ونتودد الى الله سبحانه وتعالى ونتعبد بهذا الحب فان طالبوني بحقوق هواهم اقول فقير لا علي ولا معي هذا الحب الذي شاهدناه والذي وجدناه اليوم احتفاء بميلاد النبي عليه الصلاه والسلام اردنا ان نشارككم فيه بعد ان كلفنا السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على رأس هذا الوفد المحترم كي نشارككم هذه الفرحة ونبادي لكم هذا الشعور الذي وجدناه يعني في غاية اللطف في غاية النبل في غاية الحرارة فشكرا شكرا شكرا جزيلا لكم نانا بمو ميغي ييغال باي شيخ تيانبا اك ني في توك نيب نين دال مبكتي بمو ام bi mu duggee ci jawwu canaba nee na musu koo yëg musu koo am ci yaramam nee daal bi mu duggee canaba dugg ci jawwu canaba yëg na ci boppam yëgal goo xam ni alhamdulilah mi ngi koy doog a yëg ci fépp nee na tam mi ngi leen xamal ni bi mu duggee bi mu duggee senegal ba léegi li mu gën a sentir mooy waa senegal dañoo bëgg yonent bi waaw nee na bi mu duggee xam na waa Sénégal dañoo bëgg yonent bi nee tam li mu ci gën a seetlu tam xam na ni yonent bi ay kaas yu fees dell la yoo xam ni ni mu ko mën a misaale ay kaas la yoo xam ni bëgg yonte bee ko fees dell mooy fii ci Sénégal kon moom mi ngi sant président bu bu Algérie Abdoul Majid Tebboune mi nga xam ni moo ko yabal fii boole koo mbokkam yu baax yii ni ko nanga nanga dem ca Canaba ànd ak sëñ Canaba mbégte mu rëy moomu te nee na ku bëggul yonent bi kan ngay bëgg nee na mi ngi lay xamal ni mi ngi sant sax président bi ko yebal fii ndax bi mu duggee fii canaba yëg na loo xam ne ci yaramam ak ci njabootam fa tabaarakallah mi ngi la koy seedeel nee na am na mbégte bu baax ndax yorante bi mooy lépp te waa Sénégal dañoo bëgg yorante bi bi mu ñëwee fii itam fekk na feeñ ci xar kanam yi dañoo bëgg yorante bi زدتمونا بعد هذا الاحتفاء الشعبي الاحتفاء العفوي احتفال وترحيب رسمي فيحضر معنا رئيس مجلس البرلمان في المنطقة كذلك ويحضر نواب ويحضر معنا الأمن الوطني الذي رافقنا وقوات الأمن التي ساعدتنا حتى نصل إليكم وحتى نسهل مهمتنا بالرجوع إلى البلد هذا دليل على أننا بلد واحد على أننا بحمد الله نجسد قول النبي عليه قول الله سبحانه وتعالى وهو يبين هذه هذا المعنى إنما المؤمنون إخوة وقوله سبحانه وتعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة هذه الوحدة تجسدت من خلال هذا التاريخ العريق الذي تفضل أخي البروفيسور إسماعيل سليمان قبل قليل تحدث حضرة الكاتب بالخاص لسماحة الشيخ حسن ساك تحدث عن عمق وتاريخ التيجانية في هذه المنطقة الذي ينتهي أو يبدأ من حوالي 1830 و1830 هو تاريخ احتلال الجزائر عندما نعم من الاحتلال الفرنسي في 1830 أذن الله تعالى أن تقوم حركات جهادية ومقاومة وتحيي ذروة سنام الإسلام فكانت المقاومة وقد رافقتمونا أيضا في مقاومتكم في سبع سنوات تشبه سبع سنوات ثورة التحرير ثورة نوفمبر الخالدة وأقول بأن ثورة نوفمبر بالجزائر لم تكن اعتباطية حين اخترنا أول نوفمبر صادف يومها ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى تكون الثورة مباركة وبقيت سبع سنوات طردت الاستدمار الفرنسي الاستيطاني إلى غير رجعة لأنه جاء لكي يغير هوية المجتمع دين المجتمع ما تاريخ المجتمع ولكن الشعب الجزائري قال عنه رائد النهضة الجزائري الشيخ العلامة عبد الحميد بن باديس شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب nee na jataay bi jataay bu yéeme la nee na nee na bi mu ñëwee gis na ni jox nga gëdd yoon wi ndax bi ñu ko présenté njaboot gi fi nekk président assemblée nationale Seydina Omar si mais toogal ko fi monsieur le maire bi nga xam ne moo jiite gox bi ñëw ah, sous-préfet bi nga xam tam moo fi nekkal état bi ñëw ngeen boole kook sécurité bii yëpp mu ànd ak moom ñu nga boole kook njabootam ñëpp ñu ñëw kon moom sentir na ni yoon wi am na gëddaam nee na li ku ci gën a neex lépp tam waxul sax ni aynu maadi waxu ko nee na Algérie dafa niroog cana ba ci jëfin nee na cent 1830 mille Maam Amar Ndak bi Maam Amar Ndak euh, gane àdduna nee na dafa fekk Algérie itam nee na jamono boobu ci la ci la ci la Algérie xeexa tubaab bi am ci indépendance am muy ñaar nee na professeur wax na ko léegi nee na ñaareel bi tam juróom-ñaari at yi Maam Amar Ndak xeex te professeur wax ko nee juróom-ñaari at yooyu la Algérie xeexa tubaab bi ba am indépendance am kon moom Maam Amar Ndak sax da leen a toppee mbooru ñu toppee ko mbooru ñoom fa tabaarakallaahu nee na tam ñu xam tam ni li li li li li lim koy dégge mooy li yàlla wax ci alxuraan ne innamal muminuuna ixwa kon julli li yépp yàlla di leen nase ci benn ci benn noso boo xam ne mooy na ngeen bokk benn pas-pas na ngeen bokk benn bëgg-bëgg benn bëgg-bëgg mooy bëgg yonante bi neen tam li ko ci neex lépp tam mooy mooy ki ko fi yabal mooy kilifaam di Abdul Aziz Abdul Hamid Tamuut xam ba bisu yonante bi ñaari mbégte yooyu yëpp mu boole ko ni ko demal ci wetu xalifa ba nga waxal ma ko lool nee na loolu moo ko gën a yéem ci jataay bi wa kam fariht wa ana ushahid samahat cheikh sayidi hasan murtada sak fi télévision aljazairi وهو يتحدث عن منطقة جنبة ويقول كلنا عين ماضي ونحن عين ماضي ونحب عين ماضي فهذا دليل نانا nee na daal góor gi yéem na ko nee na bi fi xalifa Ahmad Tidiane Seri bi ñëwee toog fii nee na li nga doon wax dañ ko wane ci téléphone euh, fee ci télévision Algérie moom mu toog ci bureau di ko seetaan yow ngay wax ma di la traduiral fii nga ni ñun ñëpp ci aynu maat yi la ñu bokk ndax dañoo bëgg yorante bi dañu bëgg Cheikh Ahmad Tidiane Chérif nee na baat boobu dafa rëy ci Algérie rëy na ci président bi moom sax moom baat boobu da koo touché moo tax mu bëggoon a ñëw ba jàkkaarloog sa jëmm ju tedd ji wax la xibaar boobu ndax da ko yàgg a denc ci xolam nee na daal am na ci mbégte lool lool lim la gis nit am na ci mbégte ndax ba ngay wax aynu maadi xamul woon ni di ngeen toog fi ba yéen ñaar ngeen jàkkaarloo faddal wa nahnu naqulu aydan kulluna janaba kulluna janaba kulluna janaba <laughs> moom itam ma ngay wax ni ñee na waa Algérie ñëpp nañ xam ne ñëpp ay canaba canaba la ñu itam ñëpp ay canaba canaba la <laughs> شكرا شكرا لكم شكرا لكم حياك الله زيد شوية تحدث الكاتب الخاص بروفيسور سليمان في كلمته الضافية وتحدث عن يعني تطلع المنطقة وتطلع الشعبين وتطلع يعني المسلمين هنا والمسلمون في الجزائر كي تكون بينهم علاقات كبيره وان تكون هذه العلاقات مثمره وان تكون هذه العلاقات قويه وقد ذكرت لكم اخي سليمان بان هذا ليس فقط وعدا بل هي اراده سياسيه للسيد رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون كي تكون العلاقات اكثر ب يعني محاولة تعزيز العلاقات البينية بين الدولتين وبين الشعبين طبعا وبين القيادتين بين رئيس يعني السنغال ماكيسال مع أخيه السيد عبد المجيد تبون حتى تكون هناك يعني تنمية وتكون هناك علاقات علمية معرفية وتكون هناك أيضا علاقات روحية بين طريقة هناك والطريقة هنا الطريقة الأم وأنتم هنا كما ذكرتم في كلمتكم من أقدم يعني فروع الزوايا المنشأة هنا التي نشأت هنا وأنشأها سيدي أحمد رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى وندعو له بالرحمة ولكل ولكل الورثة ولكل الخلفاء الذين جاءوا من بعده إلى أن وصلت إلى حضرة الخليفة سيدي حسن مرتضى الذي أعطاها توجيهات أخرى واعطاها واستطاع ان يجمع كل الاسره التيجانيه وكل يعني الاسره على محبه الله ومحبه رسوله عليه الصلاه والسلام نحن معكم في السراء والضراء نتعاون على الخير كما قال الحق سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ما نستطيع ان نفعله لن نبخل به بالعكس سنعطي وزياده وسندعم وزياده وسنكون معكم ان شاء الله كما اننا نرغب ان تكون ايضا يعني هذه هذه المشاعر متبادله بيننا وبينكم في هذه المنطقه ارض التوحيد ارض محبه النبي عليه الصلاه والسلام ارض العلم ارض الولايه الصالحه ارض الجهاد ايضا ونحن تقاسمنا هذه الاشياء معا ولا شك ان نقاط الاتفاق اكثر فنحن مسلمون ونحن نحب بعضنا البعض والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه fa tabarakallahu nee na Souleymane professeur Souleymane dafa wax ñaari tomb yu am solo mooy population Thiénaba bii dafa niroog population bu Algérie ci seen wàllu bëgg-bëgg ci seen wàllu doxin ci seen wàllu jëfin nee na nag mi ngi lay xamal professeur di ko xamal bàyyi sëñ bi nee na bëgg-bëgg boobu nga wax dina paase foofu ndax nee na président de la ci boppam moo ko sas ni ko diggante Thiénaba ak Algérie na ko dox ba mu gën a rafet moo ko sas tam ni ko ñaari président itam loolu mooy seen bëgg-bëgg ndax politique la boo xam ne ñaari président yoo ko jël pour ñaari population yi gën a mën a dox gën a mën a jàpp ba ba bëgg-bëgg yi gën a doon benn nee na nag yow itam bi nga ñëwee ba toog sa chance la na bi xalifa bi ñëwee itam nga jëlaat bëgg-bëgg boobu soppi ko ci bëgg-bëgg yonante bi xam ni xilaafatu tijaaniya al aalamiya ma nga samp ci aynu Maalik nga reconnaître loolu ñoom itam ñu ngi lay reconnaître sa bos bi te dinañ ci jàpp ba mu gën a bën a incha allah ba mu gën a bën a baax nee na bu soobee yàlla ndax dañoo wax ni wa taawanu alal birri wa taqwa na ngeen jëflante ci ak mbaax ak ci ak yiw firikara dañ ni al al mufassir yaqulu xirsan ala wihdati al ummati al islamiyati wa rusuuki aqidatiha wa binaa ala hada al mabda al islami ji naakum aw jiitumul yawma li ziyarat al xalifat al am kon pas-pas boobu nga xam ne moom la ñaari population yi am ma ëmbër ndaak am ko professeur Souleymane Dia développé ko nee na yow bi nga ñëwee da ngaa dajale sa njaboot woo fi xalifa bi ma ñëw ginnaaw bi mu jotee ay rapport ci maam Ahmad ndaag Seck kon ni mu fi fekk njaboot gi ba lépp baax am na ci kontaante bu baax a baax a baax a baax a baax neen président sas na ko diggante Canaba ak ak Aynouma diggante Canaba ak Algérie mu man ko dox dox bu yiw ba ñaari président yi kontaan ci te résultat boobu incha allah di di ko ab ko ci say loxo. xitaabul alxalifa al aam li taifatu tijaniyat al ahmadiya al mujahidiya fi Canaba Cheikh Hassan Mourtada Abdoulaye Seck li tarxiib bi maalil wazir saahibu siyaada waziru chuunu diiniyati wal awqaaf al jazair docteur Youssouf Al Mahdi docteur Youssouf Balmahdi wal mustashar al xaas saadat al aq xasuun wa saadat al safir euh, subayhi bu maalum euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu saaxibu siyaada wasiru shu'unu diiniyati wal awqaaf maalil wasir docteur Youssouf Balmahdi euh, ballix taxiyaata samaaxatal xalifa al aam li taarixta tari tijaaniya mawlana seydi alxaajib al arabi fi ayni maadi saadata safir subeyhi bu maalum safir jumhuriyatal jazair démocrate chaabiyati la da dakar aw la da sénégal yasurru alxalifa al aam li taifati tijaaniyati al ahmadiyati al mujahidiyati fi canaba samaaxata cheikh xasan murtada sekk asalatan an nafsihi وباسم جميع أسرة الأحمدية الجنبية في مهد خلافتها باسم فروعها وأتباعها في السنغال ومختلف أنحاء العالم أن يرحب بمعالي الوزير دكتور يوسف بالمهدي والوفد المرافق له لقد شرفت السنغال والحضرة التيجانية يا حامي اللواء التيجاني من مهدها ومنبعها الأصلي الطيب المبارك تربه aynu maadi allati shahidat milaada qutbu rabbaani abal abbas ahmad tijaani li xikmatin ilahiyatin kaana li mahdi tijaaniya aynu maadi isman mutaabiqan li sirri ilahi allati nabaa minha wa huwa milaadu mawlana abil abbas fa hiya xaqan aynun nabaa minha hada alqutbu rabbaani ila aalam alwujudi wa shuhuudi من الموطن الأصلي للخلافة التجانية العام في الجزائر حللتم موطن الأصلي للخلافة التجانية الكنبية التي أسسها العالم الكبير والقائد المجاهد الشيخ أحمد نداك سك التي طلع بدر ميلاده 1830 ميلادية ويقابل 1254 وأربعة وأربعة وخمسين أو أربعة أو أو خمسة وأربعين haasa milaadi ala al hijriya fi Thiénaba Kajoor wa talaqa taalimuhu fi tufulatihi ala yadi walidihi wa ala shaqiqihi ab Cheikh Abdou yaza bi siati al itlaa mimma ahlahu li yakuna azkara man warasa wasifata mudirul madrasati al quraniya allati assaha walidahu وقد اهتم مبكرا بالقيادات الصوفية والحركات النضالية والجهادية في عصره وأما سلسلة الخلافة التيجانية الأحمدية almujahidi fi canaba alfitrul ula ci ahmad tijani thaniyan mouhamad alxaafis rabian mouhamad mawlud fall saalisan mouhamad mawlud fall rabian cheikh abdoulkarim diallo xaamisan mouhamad xamme ba almashhur bi imam mahdi eh, xaamisan aw saadisan cheikh ahmadou ba wa wa wa wa saaminan cheikh ahmad ndak sek wa mimata mayyaza bihi a cheikh ahmad ndak sek muqaawamatuhu lil ixtilaal al isticmaari xaysu labba daawata Cheikh Ahmad Mahdi ila al jihaadi li muqaawamati sultaan al isticmaariya allati kaana hadafu al istiraatiji raisi alxadaawu ala jamii al buur al islaamiyati fi lmustamira wa fi hada al asaas tamma taxribu wara mahdiyu kama kaana Cheikh Ahmad Ndaak Seck qaa'id al muqaawama fi iddati maaarik didd al isticmaar minha maarikatu njakki wa maarikatu coowaan wa maarikatu samba saajo wa nasara li dawrihi al baariz fi qiyaadati almuqaawama kaana alwaarisu alraisi li cheikh ahmad baada an rafaahu llahu subhanahu wa taala ila almalai ala fi maarikati samba sadio bi taarix ihda ashara février alf wa thamnamiya wa xamsa wa sab'in wa ila janibi jihaadihi albutuli kaana cheikh ahmad ndak sekk murshidan diiniyan wa imaaman wa mualliman wa daa'iyan ila i'laa kalimati laa ilaha illa allah aynama halla haytu istaqara fi buqati canaba baada al istiqaara wan damma ilayhi bi shaklin tadriji atbaa alladina kaanu mutafarriqina baada marakati Samba Sadio ka man damma ilayhi alwasaniyuuna alladina ictanaqu al islam bi daawatihi wantasharat futuxaatihi addaawiyati wa fuyudaatihi attijaaniyati fi muqadi buqaay Sénégal fi muxtalif buqaay Sénégal wa duwalul mujaawi wa min xikmatihi fi qiyaadati aljamaa alwalida annahu xasama waqtahu wa waqta talaamisihi wa atbaahi bayna daawa wa taalim wa ziraa raafian shiaarahu lmashhur alilmu walamal walcibaada waqad tabicahu ala dalika xulafaahu min bacdihi ila yowmina hada biqiyaadati alxalifa alaam li taif tijaani Cheikh Xasan Seck wa bima tamayyazat bihi alxilaafatu tijaaniyat fi janbi fi canaba منذ عهد مؤسسها الشيخ أحمد داك سيك ربط الحضارة التجانية الجنبية بمهد التجانية في الجزائر hazahi hadfu raisi rabtu alxadra tijaniya fi aynu maadi wa xadra tijaniya fi fi fi mahdijani fi jazair وقد شهد التاريخ زيارات متتالية قامت بها وفود من أبناء الشيخ وأحفاده وتلاميذه إلى عين مادي ولما وصل الشيخ حسن سك أه الحالي الخليفة الحالي في جنبة إلى الخلافة kaana ëbbul mahtama bihi taakid rawaabit ruuxiya bayna Canaba wa Aynu Maadi wal Jazaayir fa talaba min alxukumati aljazairiyati bi istishaarati abra safaratiha saadat alsafir eh, subahi balalum bi tartiba ziyara min al ustati Canaba bi ziyaratihi alsaxsiya ila aljazair li tafaqudi almarkaz addiini wa maasir attijaniya lakin tama yaa maali lwasir qad abat ila an yakuna lakum l fadlu wa qasba sabt fi hadi ziyaarati lmaymuna jazakum laa xeer wa qad xalaltum yaa maali lwasir arda biladina wa huwa ahwaj ila daawatika almubaraka bi an yamuna allahu alayna wa ala aljazair wa ala wa ala wa ala raisiha aw raisiha ah, abdul aziz tabbuun abdul majid tabbuun bil amni wal istiqraar wal rifahiya tafaaulan wa tayaamunan bi barakati daawati alxalifa ila faydi jaddikum mawlana si ahmad tijaani wasmahu li ya maali alwazir eh, docteur yusuf almahdi an nuxamilakum baaliq alshukri wal imtinaan ila faqamati rais jumhuriyati aljazairi abdulmajid tabbuun wa ila xukumatihi alrashida wa ila saadati safir eh, eh, shubahi balalum wa ila sidil maxtar al munassiq al aam bayna al bayna al bayna al bayna al safaar wa bayna al xalifa al aam wa jazakallah xeyran ala hadi tartibat wa jazakum la xeyran ala hadi tartibat wa ala hadi juhud tayiba wal injazat al raay alati xumtu biha li taqribi wujahat nasar bayna al xalifa wa bayna al wa bayna al jazair bi iznin min min saadati safir jazakum la xeyran wal imtina ila faqab jumdi abdul majid atala allahu umrahu bayna aydikum wa waffaqahum wa xukmatuhu rachida li taxqiqi maa yasbu ilayhi min taqaddumin wa riqaain li watanikum algaali taabu muqaamukum ala ardi sénégal wa ala ardi canaba wa amaama alxalifata am li taaf tijaaniyati fi canaba wa aadukum ila baladikum saalimin gaanimin salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu alxalifa al aam li taaf tijaaniyata alcanabiya aquukum fi diin wa tariqa Cheikh Hassan Seck donc vous allez me permettre d'alterner les deux langues parler en langue nationale certes mais parler en français pour permettre à nos illustres hôtes de comprendre le message du khalife Serigne Hassan Seck, qui est le khalife général des Tidjanes de Thiénaba. Nous vous disons Assalamu alaikum. Comme la religion nous le recommande. vous vient de votre frère en islam, mais de votre bien-aimé. Un patriarche qui a su mener les commandes héritées de son grand-père, le fondateur du fief Tijani de Tiénaba, Cheikh Ahmad Ndak Seck, qui est né en donc appartenant aux générations bien précédentes, mais qui a su acheminer la destinée de l'islam jusqu'à l'héritage de son petit-fils, de son digne petit-fils, Hachem Hassan Sek, qui a vraiment couvert toute la famille Tchénaba, mais qui est en même temps un guide bien éclairé pour qu'on puisse rejoindre les pas du grand-père qui va nous mener, Inch'Allah, au pas de Cheikh Tidjani Sherif, radiallahu ta'ala mais qui nous mènera au pas du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa le prophète de l'islam, pour qu'on puisse avoir le salut dans l'au-delà. su ko defee kon maa ngi jéggalu li nga xam ni moom la ñu bëgg a def nii moo di gannaaw ba nga xamee ne porte parole présenté na kenn ku nekk gan gu tedd gi dootuñu ci jaara ngir gañe temps bi dañuy présenté li nga xam ni moom moo di jataay bi ni jataay bi war a tëddee allah mooy bu ma daaneele sama kàddu danaa ko jox le secrétaire particulier du xalif professeur Souleymane Dia mu joxe kàddu dalal gan gu tedd gi nga xam ni moo jóge ko réewu Algérie su ci yeggalee ñu jox kàddu gi le porte-parole du xalif El Hadji Ngagne dem Sarr moom mooy indi message yu xalifa bi waaye laata message yu xalifa bi di génn dañuy déglu suñu gan gu tedd gi di monsieur le ministre algérien des affaires religieuses donc en résumé euh, nous allons passer la parole au secrétaire particulier du khalife général des Tidjanes de Thiénaba qui est le professeur Souleymane Dia qui va prononcer le mot de bienvenue à l'endroit de Monsieur le ministre, Son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires religieuses d'Algérie. Quand il aura fini, nous allons passer la parole à Monsieur le ministre pour qu'il délivre le message du pays ami et frère Algérie. Et quand ce message aura été délivré, nous allons donner la parole au porte-parole du calife et la Jugend de Bassar ici présent pour qu'il délivre le message du calife. général de Tiénaba ici présent. Et après cela, il va bénir l'Assemblée pour qu'on puisse euh, regagner d'autres activités. Donc, euh, donc, nous invitons le secrétaire particulier du Khalif pour qu'il puisse donner le mot de bienvenue à nos illustres professeurs Souleymane Dia. Vous avez la parole.